aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin la hawla wala quwata illa billahi alil azim barke borom tuba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balaax di leen ko baal di leen sunum nuyoo sëriñ tubaa cheikh mahmadul muntaxa ñaanal ko sun boroom yàggal ko fi loolu dooli ak wéram te yàggal fi mbooleem njabootu sëriñ tubaa gépp yàggal fi mbooleem lislaam bépp fas yéene ñëw ak ci benn vidéo bu gàtt boo xam ne vidéo labyrinthe lay doon vidéo bi nag ma tàmbalee ko ci Serigne Touba mooy solution euh, loolu mooy sama kaddu yi may jiital mooy Serigne Touba mooy solution euh, donte am na ñoo xamante ni bii yàkkamtul lu nga tudd Serigne baa nga tudd Touba ban ñëw ñooñu nag nañ ma xaar maa ngi ñëw ci kanam waaye nag Serigne mooy solution pour àdduna bépp seenum xel mën a dal mooy Serigne Touba mooy jàmm mooy solution bu dee ci réewum Sénégal Serigne Touba mooy solution dama ciy teg baaraam. keneen ko am loo teg sa baaraam nga indil ma ko waaye bu mu doon ay wax mooy Sénégal ci colonisation française la nekkoon 1960 lañ amee indépendance waaye lu jiitu 1960 am na guerre bu mag bu déclaré boo xamante ni bii bi muy déclaré fi la fekk sañ Tuubaa muy diggante Allemagne ak France muy xeexu Hitler bu mag boobu nga xamante ni bi àdduna bépp dégg nañ ko te Allemagne ba façon yéenee jël àdduna bi daanaka waaye bi mu agsee ci France booba France jaaxle nañ. bari nañu soldaar bari nañu ay ngànnaay waaye seen yaakaar fan la ne mooy ci Cheikh Ahmed Bamba moo tax ñu daw ñëw Sénégal général de ñëw fii bi mu ñëwee itam sëñ Touba rek la seeti wala boog sëñ Touba moo joxe solution sëñ Touba moo joxe solution mooy kenn nattabliwut ne sëñ Touba léemu ne lu ëpp juróomi téeméeri soldaar jiital ci soldaar yooyu taw maam Cheikh Rahima Fall di Serigne Falilou Fall bàmmeelam ma nga ca tugal maam Cheikh Rahima Fall a ngi ci tubaa lan moo yóbbu bàmmeelam ca tugal mooy ndigalul Serigne Touba Xaadimu Rasuul kon euh, Serigne Touba léemu leen yabal leen ñu dem xeexal yi nguurug France booba diine xeexut waaye xubbul watan minal imaan bëgg sa réew dafa bokk ci gëm yàlla Serigne tubaa joxe solution foofu ne kilifay diine yëpp nii lañ war a def te pourtant boobu Serigne Touba mi ngi ci résidence surveillée ana yeneen kilifa yi nga xam ne kenn jàppu leen nekkuñ ci résidence surveillée ana seen i dongo ana seen diggante ak seenum réew lu mu leen jaraloon ku dul Cheikh Ahmed Bamba amutoon solution Serigne Touba ku njëkk woon français bu dee solution saayir bi guerre bi jeexee am na lu ca toppaat lan moo ci topp mooy euh, crise mondial crise boobu bi mu amee Sénégal xamuñu crise sëñ Touba du crise crise bi mu amee sëñ Touba moo génne solution ban solution la sëñ Touba génne mooy dajale ay millions yu bari man sama baay Thierno Jaxate wax na ma ci làmmiñam na ma bokk na ci ñi doon wàññi xaalis boobu xaalis boobu la sëñ Touba génne waat dimbalee ko nguuruk France kon solution ci Zahir. bu fekkee ne solution saayir la ñu indi nañ ma wax jamono jooju nga xamante ni bii euh, guerre bi taxawoon na ak jamono jooju nga xamante ni bii euh, crise amoon na ban kilifa diine moo génne woon solution ci jamono jooja te teewul Serigne Touba mënoon naa wax ne nguuru France kat ñoo ma exilé woon génn ma sama réew ñoo ma tooñoon ñoo ma def lii waaye kon baat ba mu waxoon ne xafawtu anil ahdaa i turran li wacci man nafaahum li xayri sarmadan lastu atfahu kon baat boobu ci mën du mën a bu ko utiliser wutoon du mën a utiliser lii leen gum leen jéggal moo tax mu dimbale leen kon sëñ Touba solution yàgg na koo wane. boobu solution jeex na mu ñëw ci solution yu mujj yi solution yu mujj yi mooy eh, li diine jaral Touba li diine jaral Touba mooy Cheikh Mamadou Fadal Mbacké bi yàlla dogalee muy tabax jumaayu Touba Sénégal am indépendance ay nit di ko xëccoo ab chrétien bokk ci ab jullit bokk ci sëñ Fallou ban la def référence mooy jàkk jumaa ji mooy jumaa ji la joxoñ ne. képp ku ñëw di wut réew mi ca joxoñ ma jumaa ji ne dinaa la ci jàppale yow dinaa la jàppale ci réew mi man soxlawuma ku ma jàppale ci sama bopp soxlawuma ku ma jàppale ci sama dëkk ndax lu ciy am sëñ Tuubaa ñaan na ko waaye jumaa ji nag laa bëgg ku ma ciy jàppale rek boo dikkee danaa la eh, jàppale te booba jàppale gi weesuwul yombalal ko matériel bi mu mën a ñëw wan ko ko fu ñu koy jaayee mu mën koo jënd waaye soxlawutoon xaalis bi yàlla dogalee ñooñu ñëw Senghor moo ci tudd jumaa ji ka ci des tudd jumaa ji sëñ laa làmb poosam na ko wëggee fas yi ngay àndal te loolu mooy jënde ko essence ndax booba waruñuy fas kon Senghor lislaam yi jumaa ji moo taxoon sëñ Fallou jàppale ko kon lislaam yàgg nañoo jaral bi ci topp dama koy tëb ma ñëw ci Serigne Touba Cheikh Mahamadul Montaxa yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér bi yàlla dogalee ñu ne coronavirus dugg na Sénégal président la république am na ci jaaxle waaye yëkkatee gutoon kàddoom kan moo dooleel se xalif général président de la république kan moo ko may fit mooy ki wa ki nga xam ne moom la maamam génne woon solution mu di Cheikh Mahamadul Montaxa solution bu njëkk ba fekkut sëñ Muntaxa gane àdduna solution bu mujj bi da koo nàmpe ci maamam moo tax mu génn ko sëñ Muntaxa daal di génne 200 millions teg ne état maa leen ko jàppale maa leen jàppalee teewul moom mi ngi ak sànce de am na université bu 37 milliards mi ngi ak sànce bi jumaay Tuubaa mi ngee ak sànce daara yi mi ngee ak sànce bi yoonu murit yépp waaye teewul mu génne 200 millions teg ci taabal ji ne sëñ mun ne président la république maa la ko jàppalee kon génne na solution zahir mu des solution batin bi solution batin desee kenn nattabli wut ne Sénégal li ñuy dund quatre-vingt-quinze pour cent yi wala quatre-vingt-dix-huit pour cent yi ay musulman leen koo ci tudd Abdullahi la tudd wala Moustapha wala Yuusufa wala nanga Moussa wala euh, Ibrahim tur yooyu rek nga fi nekk ñuy dem màkk elaas yi bari ci aji yi bari ci kon jàkk yi bari jumaa yi bari daaray alxuraan yi bari kon yaakaar naa ne ñun ay njullit la ñuy tuddoo bi yàlla dogalee ñu ne jaxasoo bi kat day day indi yokk feebar bi sëñ Muntaxa jox ndigal kër sëñ Falilou ñu jëfe ko jëfin wu rafet màggalu Kazu Rajab kenn nattabliwul ne Sénégal dana yëgal boppam ne économie Sénégal baissé wu na ci màggalu Kazu Rajab ndax lim ci daan yëkkati ko waaye ñoom d'accord nañ ci def ko na ko sëñ Muntaxa diglee kenn du ne mbooloo ma daje Touba moo yokk coronavirus bi foofu ma profité fi ñëw ne billaahi baatin da ngeen koo xamut te du ngeen ko gëm waaye alif lam mim saalikal kitaabu laa rayba fii hudan lil muttaqin allazina yuminuuna bil xaybi bokk yi ku dul gëm bu doo gëm lu ñëwagut doo gëm baatin ñun dañoo gëm baatin ñun li tax ñu gëm na àjjana am na gëm na sawara am na gëm na ay malaaka am na gëm na dee am na gëm na dekki am na te teguñ ci suñu bët mooy dañoo gëm dañoo gëm baatin ñi gëmut baatin duñ gëm loolu ñoo ñu gëmuñu sax ne yàlla am na gëmuñu na sax danañ dekki ndax am na wax yoo xam ne ku koy wax doo gëm ne da ngay dekki Cheikh Mamadou Fadal ñu màggal kasu rajab baat bu ci sëñ aboo teg kasu rajab dana yóbbaale coronavirus bi bokk yi Touba ëpp jàmm ci dëkk yi nekk ci déggatuñ benn kaatubaa ba mu ko waxee ak léegi déggatuñ benn kaatubaa am na ustaas bu teggi ndawal ñu di ko wax Omar Sall dama koy wax ne ko yow doo boroom xam-xam ndax inna allazi lam yaxsha rabbal alamin laysa bi aalimin walaw afna al funun boroom xam-xam ba ragalul yàlla na xam ne doonte jeexal na téere yépp du boroom xam-xam te ku ragal yàlla doo tooñ sa morom ku ragal yàlla doo tooñ sa borom ku ragal yàlla ku ragal dëgg nag doo doo doo doo doo léeboo ku ñàkk jom mooy léeboo yaa ngi taxaw fi naan ana borom na am ana borom du am ana borom nangam ana kilifa yow xanaa doo kilifa ak diine yan engagement nga jël ci réew mi yow loo tekki ci réew mi lan nga ci tekki maanaam dimbale woo Macky Sall ab saakoob ceeb dimbale woo ko ab bidon ordre sevel dimbale woo ko benn carton madaar joxe woo benn butéelu sel xanaa li nga koy dimbalee mooy menacer pas-pasi jàmbur yi yow bu ñëpp melee ne yow coronavirus bi jeexal réew mi. ndax tekki fi dara amoo baatin booy ñaanee amoo saay sooy dimbalee est ce que doo ñu dimbale ngir yàlla nga noppi tëjal sa làmmiñ wi nit ñi xam nañ la ñun dund dund ci ay financement li nga war a def mooy noppi te yow yaa njëkk a violé loi bi parce que dañuy tëjale tere ku daje ci jumaa yi yow nga daje ci jumaa yi di attaqué nit ñi di leen tooñ lu la lislaam jaral lu la diina jaral ndax yow jar dee jaral julli jaral na la dee déedéet same jaralu la ko noppil bu ma sa kàddu bi ci topp mooy euh, waa daayira Muxaddamatul ma ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci liggéey bu am solo bi ñu liggéey avant président di yëkkati kàddoom avant ministre de la santé di yëkkati kàddoom jël nañ ay matuwaay yoo xamante ni bii li ma wóor mooy waa santé képp bu ñu yëgoon ne matuwaay yu mel nii la jumaa yëpp jul euh, euh, jël ak fagaru bu toll nii duñ tere kenn julli ndax ay jullit lañ dañuy bàyyi nan état day tere julli état ay julli te fa ne ña fa nekk ñëpp dañuy julli dañuy tere ko daje. ku daje la ñuy tere baat boobu nañ koy liggéey mooy état terewut julli day tere ku daje mais matuwaay muxaddamatul xidma jël ndax jenn jumaa jël na ko ci Sénégal ndax jenn jumaa jël na ko ci Afrique yéen ñii di coow ba ngeen déggee xoox ragalu leen yàlla gendarme yi ngeen ragal barki alquran ragalu leen yàlla gendarme yi ngeen ragal ndax ba gendarme ne hop ngeen ne kapp seen i jumaa yàlla jëralu leen tijjeeti ko mais Touba ci ubbi état yónnee fi na leen julli yi lañ bëgg ñu ne leen d'accord nañ ci fekk leen ci mbooloo mi du daje comme ni ko defe woon ci kaso rajab waaye daayira mu xadamatul xidma ba ne ca jumaa ja mat nañoo taxawee ak julli ñoom daal nañ fay nodd di fa jullee wuutu fa mbooloo ma mais jumaa ji moom tëjut kon loolu nañ ko bàyyi suuf mbooloo may dajeetuñ fa état bi amul soxla ci jumaa ju ubbeeku li muy am soxla mooy mbooloo mu daje sëñ bi suñ bunt kër yi tëjewut di état bi du tere ku ubbi sa jàkka du tere ku ubbi sa jumaa li muy tëjee ku fa dajale mbooloo te loolu euh, wér-gi-yaram moo ko laaj kon yéen ba ngeen ne kàpp seen i jumaa ngeen waroon na képp seen gimiñ ba ngeen ne kàpp seen i jumaa rek da ngeen waroon na képp seen gimiñ te noppi mu ci am nañuy kàddu yemuñ ci loolu waa ban ban ban ban dëkk ban tariixa gan kilifa la mbooloo mën a dajale cinq millions tudde ko Touba ca kanam jënd ngir def sensibilisation jënd ay motori pompe jënd ay machine jënd liquide bu ñu koy pompe ànd ak service de sine service de sene ànd ak santé ànd ak euh, sous-préfet ñu mën a pomper dëkkub Touba bi mën a setal waa dëkkub Touba bi lii moo tax Touba coronavirus bi bi mu fi duggee ñu génn ko fa saa sa dem kenn déggatut kaa bu am Touba ñett ñi ci nekkoon it wóor na ma ne waa sante bu ñu leen laajoon ñu ne seen wér gi yaram tere li ci des mooy waggar nit ñi ba du leen dal moo tax sëñ bi tere jaxasoo gi moo tax sëriñ bi nen julli jumaa yi nañ wàññi mbooloo ma fay daje. waaye sëñ bi loolu ku bëgg sam réew noonu ngay def sëñ Touba nii mu participé ci réew mi noonu la kilifa yi diine yépp waroon a participé ci réew mi bi ci des nag ak labiré lay doon mu jëm ci El Hadj Ndiaye 2 ak Moustapha Diakhaté sëñ El Hadj yow yoon wi dala ruus nga am fi ay xarit di wane ak bokkoo it ak sëñ Touba Cheikh Omar Fouti moo jóge woon alwaar ngir wane si leeruk Cheikh Ahmed Bamba ci Mbàkke Bawol dama bëgg boo toogatee ci sa télévision bi lépp loo xam ne écran yi dëpp nañ la ko ndax yow ku ne kenn nattable wut ne ci wàllu communication am na ci côté boo xam ne da nga caa isolé woon am na yu bari yoo xam ne sa yoon nekku ci woon bu la kenn yóbbaaleeti ci ay wax ba nga naan waa Touba dañ leen a war a ber loolu eh, yow moom dañ laa ruus da ngay mbokkum dëkk nit ñi di mbokkum sëriñ bi itam kon nag googu kàddu moom seen séentuwuñ ku woon ci yow ndax sag maandu ndax dëkk bépp nee nañ woon da ngaa kon ñu ngi lay ñaan yu mel noonu bu ci yow ndax bëgguñu laa tontu ndax yow wëllërewu waa Touba kon côté boobu dimbale ñu rek bul ci waxati yow nag Moustapha Diakhaté foo féete ndax yow yaay président la république ndax yow yaay ministre de la santé yow ndax yaay ministre de l' intérieur ndax yow yaay ministre de force d' armée man ndax yow yaay ministre de transport yow koo doon yow gouvernement bi nga nekk sax mënoo fee sax ndax waaye di bërki démb nga ci nekkoon démb ñu dàq la. tey nga bëgg caa delluwaat nga naan Touba dañ leen a war a ber ak sa tur bu baax wii Moustapha seetal sa bopp nag gis nga wax ju bari day soofal nit. te murid yi am nañ kàddu te mën nañ laa tontu bàyyi leen bu ngeen toogee média bi wër leen ku nekk di mbel mbeli kon nag seen mbokkum taalibe Fallou Galass Syll moo amoon kàddu yoo xam ne da ko doon mënutoon a ñàkk a yëkkati ñu wéyaat nag di jaajëfal bu baax a baax a baax Serigne Touba Cheikh Mahamadul taxaa di jaajëfal itam mbooleem ñi nga xam ne ñoo yor organisation ci yoonu murit ci sensibilisation bi nga xam ne ñun ñëpp ci àndandoo ngir dégaase jàngoro ji alhamdulilahi rabbil nag bi nga xamee ne nag dañoo war a delluwaat ci yàlla sëñ Muntaxa xëy joxe déclaration ne fu ab jullit mën a ne fu ab murit mën a ne tey wéye ndigal na jàng kaamilub alquran boole ci def ay sarax boole itam def jàng xasida yi sëñ tubaay def ay salaatu ala nabi sante ko yàlla sant lee ko sëñ tubaay yàlla sant lee sëñ muntaxaa sëñ tubaa ndax jàngoro ji sëñ muntaxaa rafet na na njort na lee mu génn senegal senegal am ndam wane wane ndam ci Afrique président la république njëkk am ndam ci réew yi mu dugg Sénégal gépp am ndam Afrique am ndam jàngoro ji génn ci àdduna bi kon solution saayir sëñ Muntaxa génne na ko solution baatin sëñ Muntaxa génne na ko génn na 200 millions jàngalu na ay kamil yeneen këri diine yi yeneen ustaas yi yeneen regroupement yi nañ def na yoonu murit baa ñu tëj seen gémmiñ yi na muut wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.